asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di fendale suñu kollëre ak suñu cofeel ci yéen tey nag dañ leen di indil gént ñu jëng la moo xam ñoo takk sa yaari loxo wala sax ñu monate la wala xeet yu deme noonu ku gént ñaari ñu jëng la nag loolu dana tekki kuñ jekku ci wàllu baatin dana tekki ku nekk ci jafe-jafe dana tekki koo xam ne wërsëgam dañ ko téye dana tekki ku ñu liggéey ba yàqal ko mooy gént ñu jéng la bu fekkoon na ab sey nga di saxaar moo xam ku góor ki moo xam ku jigéen kila nga géntu ñu jéng la moo xam sa yaari loxo sa yaari tànk wala ñu boole sax yaar yépp jéng loolu boo ca duggee ay xat-xat yu taratar danga ko am wala ay jafe-jafe ci wàllu alal bu fekkee koo xam ne kii kuy waajal tukki la listixaar géntu ñu jéng ko takk ko bu demee dana fa am gàllankoor yu taratar ne yebbi mu gën a gaawe ba tey bu fekkoon palaas bi muy bëgg liggéey la palaas booba jigu ko bu fekkoon ne kër gum bëgg tabax la kër googa am na gàllankoor bu fekkoon ne kum bëgg a àndal ànd ak liggéey la ba tey bu ca duggee dana am ay jafe-jafe ak ay gàllankoor ba ci sax koo xam ne dafa nekk barzaq ñaare bu fekkee danga nga gént ñu jéngu ko kooku mi ngi ci ay jafe-jafe mi ngi ci ay nattu ñu ngi koy xisaab xisaab bu métte kon ñaanal ko dana war wara a ko ay sarax amaa nag yow ci sa jëmmi bopp bu fekkee da nga gént di jéng nit loolu day tekki koy jekku bu fekkoon na koy sàkku ci moom dara la danga ko jot bu fekkoon ne koo doon xeexal la xeexu baatin loolu ak tàggat la ci moom bu fekkoon na fay wax la kasaalika jekk jekku nga ko kon ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu ñaan boo doon ñaan ba ci yàgg moo xam xalwa ngay def wala riyaada gént jéng nit mën na laa dikkee nit koo xam ne sax xamoo ko wala nga gént jéng sax aw rab loolu ijaaba la tasxiir la ca la nga doon ñaan amma bu fekkee jëmmi nit ki nag dafa gént ñu jéng ko ba ci yàgg mu euh, génn ci jëng boobe maanaa fexe ba tekki jëngi ba loolu ñaare ku ñuy ñaanal yow mi koy ñaanal da ko gént wala sax moom ci boppam mu gént ko wala ku ñuy faj ku tawat bu géntee ñu jéng ko mu fexe ba génn ci jëng boobe loolu tawat ju saafara la bu fekkoon ne bu ne ci jafe-jafe ay génn ci ay jafe-jafe tamit lay tekk kon loolu bu fekkoon ne sax it aw fas la nga gént jéngu ko dala tekki soxna sooy jekku wala sax taxawee taxawaayu góor sa borom kër booy jekku amaa nag bu fekkee dafa rëcc ci jéng ba dem loolu mën naa tekk ak tàggaliko ci seenu diggante kon li takk-takk yu ci am solo la ci wàll woowu muy nit wala takk ko wala rabal xeet yu demee noonu kon ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li koy yëkkati wassalaamu aleykum wa taala wa